sëñ Maxtaar ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar sa sañ. waaw tey waa ab naa fu ñu war lalee mbalaan mi. waaw tey de ñu ngi fii ci Mauritanie incha allahu ta incha allah ci Nouakchott. incha allahu taala incha allahu taala. Mm-hmm. di woo waa Nouakchott yëpp. waaw rawatina am naa wax hadrati Tijaaniya. waaw ba fa nekk waxuma Nouakchott rek mais. Mauritanie gépp waaw waaw waa fédération bi. surtout waa fédération bi. jeunesse bi ñëpp daal tey ñu ñëw ànd ak ñun. incha allah allah ban bërëb laati. waaw PK8. PK8. ca Zawiya Cheikh Seydil Hadj Malick. macha allah yaa xam ne yaay borom dëkk. waaw loolu am <laughs> kon fii lañuy ñuy defee annonce xadara bay am le premier stade. Amadou Barry le premier avril. incha allah incha allahu taala kon mu ngi noonu. Mauritanie tey la ñuy tëj seen xadara. waaw tey la ñuy tëj ñëw ci final bi nag. Dakar incha allah Dakar incha allah soobee yàlla. Alaaji Maxtaar jërëjëf kon Mauritanie am nañ gan tey. macha allah jërëjëf sax.